الملك الحق المبين شيخ ابراهيم yow ku réer yaa ko gindee Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi mi fi tew yëpp si turu jeuwriñu Seera Fall ju di Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend mu yebal sinu fi ci wetu rakam ji di ab taalibeem di Serigne Abdou Fall mom Serigne Mor Talla Fall mu toog ak dend ak Serigne Baye Ndam ak mbollem njabootug Seere Fall gi njabalnu nu fiit ci wetu njabot gi nga xamne njabotuk bopam lañ muy njabotuk Serigne Baara ndjay Serigne Mbacke ndjay mi tok di jëwriñ ji jiite njabot gi eh, gannaaw ba mu len nuyo sant euh mi ngi len di jotali di leen masawu di masawu mbooleem njabootug Cheikh Fall gi si ni ko xamee rek xew-xew bi nga xam ne moo fi am te ñëpp ñu yëg ko te dégg ko muy dong bii nga xam ne di sëtub Cheikh Fall di sëtub Serigne Bara Ndiaye doon ko am ab dayoo si yoon wi yàlla sunu borom dogal mu wàcc ab liggéey si anam yoo xam ne eh, yàlla moom lépp lu xew rek moo ko dogal waaye coobare nit it bokk na si ndax li waral dem gi. ñun ñëpp xam nañ ko ah sëriñ bi doon wax léegi jottali na kaddu yi na ko ñëpp mu leer si noppi ñëpp rek ñëpp xam ko te xam ne dañu koo faat si anam yoo xam ne anam yu metti la yu tar la waaye nag si ak tooñeel tooñeel goo xam ne tooñ gu mat sëkk la ndax ni nu ko waxee ay tool moom fekkiwut kenn ak jur nooy fekke ak tool waaye tool moom fekkiwul kenn koo xam ni day liggéeyal yàlla nekk si ndigal takk ak deram muy ak laxasayam bay ab tolam ba mu àgg si ko di wëlbeuti ay tar nga fekk ko sa biir ab tolam dugal fa sak jur mu soñ la ngir nga genn jur gi nga lank sa ko lenn lu mut lu bocc sa jasi fekk bobu mom yorul genn ngannaay nga bocc sa jasi kor euh, gor ko ko ba mu faatu lolé xamna ni coobare suñu borom la waye tayefuk doom adamat ci la bok serigne bi wax ne jëf joo xam ne naqari na ko lool metti na ko lool te it noonu ko sëñ waxee léegi rek bu fekkoon ni fii la ko fekk day moom mooy toog si jataay bii waaye bu sëriñ Abdou mii toogee Baye Ndaam mii toog mel na ni toog na kaddu yii ñuy jibalit si turam mel na ni moo koy jibalal boppam te moo nu sant nu wax ko li si jiitu nag mooy di masaw ak di dalal njabootug boppam muy njabootug Seera Faal ndax lii xew day wax na ni dalul ci kenn ku dul moom ci boppam la dal ci kawam la dal ndax njaboot Cheikh Fall gépp ak njabootam lañ rawatina kii nga xam ne ah, daa bokk ci njabootu boppam ndax fii mu bokk muy kër seex Mor Talla Fall muy kër cër boo xamante ni bii sunu borom moo ko ko cërale waaye mu jaar ci yoon wa nga xam ne moom la sunu maam fakkoon muy yoonu tërbiya xam ne nit lu mu bari bari xam-xam te amul ab yar xam-xam ba amul benn njariñ wala mën na koo womat jëmee ko foo xam ne du ko neex du neex ay bokkam mu yoon woo xam ne ba ko Serigne Touba faggulee Cheikh Fall mu jaar si jaarale si ña nga xam ne ñoom la amoon kër goo dugg tey jiiri fekk fa dara rek la leen ko may mooy takk ak der laxasaayu muritu liggéeyal sëriñ bi ba am ngërëm ngërëm mooy maye lii nga xam ne moo mooy ab cër si kër sëñ Touba. ñi andon ak seigne Touba tay ji kenn ku ne ñu lay tudd wala ñu tudd sax njabot kenn ku ne si ñom da nga jaayante won takuk der di muritu ba am gërem mu kujib ku jeblu rek yaa ci si yoon wowe waye nak yoonu tak der nek ci dara bàyyi lepp sax ndaw lepp nga jox ko sëriñ bi bëggoo dara soxlawoo len lu di ñak di yot sëriñ bi waxuma la lam lay fagul tay ak ëlëk waaye defaru gi nga xam ne moom lay def si doomu aadama defaru googee jar na kenn ku ne fexe ba fàggul ko sa bopp wala nu fàggul la ko ndax ab dong buy mëritu li muy def si nit doomu aadama dafa bari ndax mboolem jikko yu rafet yi nga xam ne mooy tax sunu jaamu yàlla mën a sell mooy mën a tax ñu mën a jege sëriñ bi jikko yooyee muritu da koy def si doomu aadama ab dongo du tooñ ab dongo du jubadi ab dongo lañ ko tàggan mooy makaarimal axlaax te loolu mo newoon ci jëm ji nga xam tay ji mom lañu faat ci anam yi nu ko faat mu fekk ko nak ci ndigal nga xam bu fekkone tay ji dafa awon yoonu bopam du xañ na du du du du mel ni mu mel waye li nu ko def da koo fekk ci ndigal muy ndigalul wajuram di ab serignam kon nu xam mom na xel yi dal ci mom loolu la señ bi waxon nañ ko wax njabot gi muy njabotuk serfal gep ndax ku bokk si kër Seera Fall tey jii am nga lu la naqari am nga aali jóg fajal ko sa bopp waaye nun taalibe dafa am yoon woo xam ne dañ see tënku kenn ku si nekk da ngaa sàkk woon si sa jëwriñ ne ko loo ma digal ma def loo ma tere ma bay kon balaa ngaa jëf lenn da ngaa ndigal ba am ko ba nga xam ne mbir mi xew na te sëriñ bi jot si si la daal di sàkku si njaboot gii li jiitu ñu amuk dal te déglu ko loola moo waral tey jii mbir mi yem fii mu yem ndax du fekkoon ni ñoom teewlu wuñ ndigal topp ko kon nag ni leneen la ñuy wax ndax kër Cheikh Fall xajuñu si ay pël yoo xam ne dañoo jëf-jëf ju ñaaw waaye ndigal li ñuy teewlu moo tax tey ñoom ñu toog nii ne kenn ku ne bank say om, di déglu ndigalu sëriñ bi seetuñu lu ñu neex seetuñu lu naqari bëgguk sëriñ bi rek mooy sunu bëgg li sëriñ bi digle woon nag sa njalbeen ga mooy ñun ñëpp ñu ànd dal delo ko si yàlla sunu borom mi nga ne moom moo ab jaamam te yoon wu ko soob la koy jaarale waaye ba sëriñ bi sàkkoo loolu si njaboot gi bañ may ko ko mooy fii ñu toog amuñu jenn xalaat lu dul déglu sëriñ bi fépp fu mu nu joxoñ ñu jëm fa ñu jëm fa ba mu ko sàkkoo si dongo yi ba nu am ko nag dafa daal di santaane nag ñu daal def ab soññee nag si ñi nga xam ne ñoom la ñu bokk réew mi wala ñu bokk ak ñoom dëkk bi te sëriñ bi tudd leen sànq bokk na si ñoom ñi nga xam ne ñaare lu mel nii day xew sunu digg ak ñoom ndax yàggu dara at yee si ginnaaw ay pël rey nañ fi ay dongo ba tey sa xew-xewu Saam Fall ba bërki démb dongob sëriñ Fallu Fall moom sëriñ am di Yaasin ab pël gor na ko ba yàq yaram wa moom mii nga xam ne tey moom la rey doomam yàggu dara gor nañ fi ab dongo boo xam ne dañ ko ko joxoon muy liggéeyal yàlla mooy ba ba mu faatu si anam yooyee tey jii lii xewaat donc gone su ndaw yor jaasi ñawal ko ba mu ñaw amul lenn lum si xalaat lu dul di awale ko si biiru jàmbur ba di ko faat di jël bakkanam loole lu ñaaw la jëf ju ñaaw la sëriñ bi nag wax na ni lu nu mën a faj la bu gaaw a gaaw a gaaw waaye nag moom si boppam di jëwriñu Cheikh Fall dafa am fu mu tënku gannaaw ba nga xam ne njabootam gii tënku nañ ci ndigalam moom it dafa tënku si jëwriñam ji di Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Touba Khadimou Rassoul kon ñooñu ñu xam ne ñoo ñoom ñoo bokk réew mi ñoo bokk àll ñoo bokk àll bi ñoo bokk tool yi ñoo bokk ak bëgg te kenn ku si nekk xañ na da ngay sàkkoo jë sa saw ñaq moo waral nga nekk si àll bi waaye kenn santu leen loolu yi jëf yooyu te seetlu nañ ni moom mi ngi bëgg yaatu nag wala mi ngi bëgg a bari xew-xew yu mel noonu di am te waxtu wu ne dañuy dégg ni pël ba gor na dongo ba ba rey ko mbaa mu yàq yaramam waaye déggaguñ ni dongo ba gaañ na pël ba wala rey na pël ba loolu kenn déggagu ko fi kon loolu di loo xam ne lu war a lu war nu war a seetaat la lu war a dakk la lu war a jeex ci réew mi la lay tax mu jeex nag ñaari anam rekk la mooy nu mën a wax ñoom ñu dégg jéem a sàmmonteeg loolee way laa saa ki nga xam ne dañ koo tànn wala ñi nga xam ne dañ leen a tànn jox leen sunu baat ñu jiite ñu yor réew mi te nga xam ne ñoom ñoo am baat bi yor yoon ñoom ñu jóg jëfe la nga xam ne moom lañ leen sant ñu jëfe ko ndax bari na si ñoo xam ne tey jii ba ñu defee jëf yu ñaaw yooyee ñu jàpp leen yóbbu leen jëbbal leen yoon ba nu toogee ab diir am na ñoo xam ne dañ leen a gisaat ñuy doxi seen yitte kon dafa mel ne taxawaay ba nga xam ne loolu la si yoon war a am dafa am lenn loo xam ne dasaa des te loola du seen wàll kon sëriñ bi mi ngi soññ ak di ñaax ñi nga xam ne ñoo yor yoon gannaaw ba mu leen santee si li weesu lépp nag mooy matuwaay yi nga xam ne war nañu koo jël si lii xew tey jii ak li mel ni moom ñu jël matuwaay yooyee bala ñoo jekki ba ñu jëfeel neneen noo xam ne du gënal kenn wala du rafet si bati kenn kon mi ngi soññi ñi nga xam ne ñoo yor yoon wi gendarme yi nga xam ne ñoo fa ñëwoon doxin wa ak lépp nettali nañ ko sëriñ bi xam ne ko ñawlu na ko lool xagn na nak lool lepp nak bokku na ci li tubab di wax stratégie de défense wala bok bu nu bëggé contenir euh, foul bi wala wala wala wala wala insurrection bi dana am ñom seen système yu ñuy doxé waaye nak ñi nga xamné dañ leena gañ ko xamné dañ ko fekk ci tolam ray ko ña nga xamné ñom la nekkal team ko gis ko ñoñé dootu ñu mëna and ak sago so xamné ne nga dinañ leen mëna doxé nañ bëgg ñu doxé na kon ñom ño waron am matuk man leen a comprendre mën leen a dégg ba mën a contenir seen colère yooyu ba lacrymogène yii nga xam ne moom la ñu fa sànni sëriñ bi nee na mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax ndax war na noo mën a wax ak ñoom wala ñu jaar ñoom foo xam ne du ñu àgg si di jël ay lacrymogène di ko sànni ñoo xam ne seen xol dafa naqari ba noppi ñu wëlbatiku di leen dóor ay lacrymogène loolu sëriñ bi nee na ngi koy ñaawlu bu baax a baax mm, di sàkku nag mm, lii ñu jaarale ko yoon wañ ko war a jaarale ba bu ëllëgee. lu melni ni dootu am ndax dañu wax ni am na ay yoon yo xamni lepp ci keur Cheikh Rafal la dal wala ci njabotuk Cheikh Rafal la dal ndax ki nu fàtt tey sëtub Cheikh ibrahim Fall la ndax Mortalaay mamam Cheikh Rafal di wajuru Serigne Mortala Fall Serigne Mbacke Ndiaye mi di wajuram Serigne Baara Ndiaye di mamam di ko xam da liggeel Cheikh Rafal ba am ngeureum te dong yëpp nak ñoyam ndax kenn ku ne ngeureum rek ngay sakku ndax ku joxe sa bop rek. da ngaa jël da ngaa jël njuréel ga ak cër ba lépp jaay jënd ko ak taalibe ñu lay digal ngay jëf loolaa ko yóbbu sa daara joojee loolee mu doon saytu liggéey la woon boo xam ne su su àggoon sottee du loo xam ne da koy jariñoo wala wajurum yi da koy jariñoo liggéey la boo xam ne si tool bu sëñ Bamba bi rek la jëm kon nag kooku da doon liggéeyal yàlla kon nanu bàyyi xel ne dong yii si àll bi di liggéeyal yàlla ñoom day lañuy jëf sëriñ bi rek lañ koy jëfal sëñ am di nag nee na moom de baatub sëñ Muntaxa rek lay déglu ndigali sëñ Muntaxa rek moo ko fi indi te bàyyi ko fi waaye lii de wax na ni lu lu neex a jëf la lu neex a saafara lu neex saafara la te lu war a dakk la nag ndax bu dëkkul fa mu nu jëmee mën naa doon foo xam ne fii du gënal kenn si nun malikul haqqul mubin Cheikh Ibra yow ku réer yaa ko gindee Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall